mbokku Sénégal mbokku Afrique mbokku Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa gan ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar Cité Port Kenok Juma Masalikal Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation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 wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen balu aq te di leen baal di leen jéggulu itam ci njuumte yenn yi nga xam ne du ñàkk léeg-léeg muy rot ci liggéey bi waaye ñu leen koy tuubal bu baax a baax te di leen ko jéggulu ngeen xam ne njuumte yi ci rot yeeg ci kiy taxawee liggéey bi la waaye téere bi moom ki ko bind moom ku mata mat la te it bind na ko ci anam wu jaar yoon waaye bind na ko ci anam woo xam ne anam wu ñu mën a jariñoo la kon njuumte lu ci am rek ngeen ñu koy jéggal ñu ngi leen koy dogal ngànt bu baax a baax a baax a baax comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bés jot di waxtaan ak yéen ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu te ñu doon ànd ak yéen ci sunu jataay yi wéy ci fan yi yëpp ci téereem boobu nga xam ne moo tudd Munawwirus Sudur ñu koy nafarandoo ak yéen ba suñu bind bi nga xam ne moo mujj ñi ngi taxawoon ci li nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne mooy jàngale maraatibu tawba muy ba yi nga xam ne moom la tuub amee ja jëloon na bunt boobu jàngatandoo ko ak yéen ba mu jeex tey dañuy sof suñu bindub tey rek ci bind bu bees boo xam ne ab bunt la boo xam ne dañuy jàngal way màggi bàkkaar yi muy bàkkaar yi nga xam ne dafa màgg lool te doomu aadama bi war ko bàyyi xel ba bu ko defee mu wëlbatiku fa saasay saasa tuub ko waaye muy bàyyi xel boppam ba di bañ a tàbbi ca bàkkaar yooya bunt boobu moom la tudd moom la sëriñ bi radiyallahu anhu tudde faslun fil kabairi mooy lii ab dog la wala bunt la boo xam ne mi ngi wax ci bàkkaar yu màgg yi bàkkaar yu màgg yi nga xam ne doomu aadama bi dana faral di juum di ci tàbbi mu bëgg la ko xamal bàkkaar yooyu yan la ba nga man koo moytandiku bu baax a baax a baax a baax moo tax mu ne kabairul aasina way maggi bàkkaari way moy ñi badat feeñ na di ñaar fukki bàkkaar amman faña nga xam ne nuquluhum seen ak toxal saxiixatun lu wér la teyit lu jub la bi ci njëkk mooy odbun mooy euh, naw jëf naw jëf nag bu ko waxee al imaamul Xazaali andil nanu ci ab taarif bu ama am solo mu wax ni al ujbu buñ ko waxe huwa isti'zaamu ni'mati warrukunu ilayha maa nisyaani idaafatiha ila al mun'imi mu mel ni moom noonu la taarife li nga xam ne mooy naw jëf wala boog aaw ne na aaw mooy nit ki di màggal xéewal gi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala defal di jàng di ca jëm jël yitteem jëpp def ko ca xéewal googa jël yitteem yëpp def ko ca euh, boole ko naw ko lool waaye fàtte ki nga xam ne moom moo ko xéewale te mooy suñu borom bi subhanahu wa taala euh, al imaamul xazali moom noonu la xam xamle li nga xam ne mooy al ojbu kon mooy nit ki ci boppam xéewal bi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa defal mu koy ndamoo waaye mu yëkkatiku ca xéewal googe di ko di màggal xéewal googe di gën a jeng di ca jëm bu dee xéewalu àdduna la mu euh, mu koy gën a jay Euh, di ko gën a màggal boppam waaye ànd ak loolu lépp day fàtte suñu borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moo ko defal xéewal googee loolu nag mbokk yi bàkkaar la bu rëy rëy boo xam ne euh, képp koo xam ne nekk na ci yow war ngay euh, def sa kemt lay kàttan ba di fexey di tuub loolu nga xam ne moom la mooy bàkkaar bu màgg boobu waaye di fexey ba bañ cee tàggat sa bakkan waaye bañ a bàyyi sa xol muy jëng di jëm ci bàkkaar yu màgg yu mel noonu moo tax ci bàkkaar boobu suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ci xazwatu xunayn di wax ak jullit ñi laxad nasarakum allahu fi mawaatina kasiratin wa yawma xunaynin iz ajabatkum kasratukum falan tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al bima rahabat summa wallaytum mudbirin day mel ni jullit ñi seenub lim dafa bari woon lool waaye jamono ji nga xam ne moom la seenub lim bari ba yéem leen day mel ni jamono yooyu dañ caa amoon ay tolof tolof amoon ci ay jafe-jafe bu baax a baax a baax a baax léegi nag loolu li ko waraloon mooy dem ba naw tàmbali di naw seen bopp ngir bari goo xam ne bari nañ ko suñu borom nag di leen fàttali ne leen day euh, am na ci barab yu baree bare bari yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo leen dimbali woon ca barab yooye lu ci mel ni xaswatu badrinil kubra ak yeneen xasawaat yoo xam ne jullit ñi seeni lim day néew lool waaye suñu borom subhanahu wa taala ak ndimbalam ak bëgg gi mu bëgg a taxawal lislaam jaare ko ci jullit ñooñu moo taxoon mu leen daan jàppale bu baax a baax di leen dimbali mu mel ni jullit ñi dañoo dem ba toll benn jamono joo xam ne dañoo gis ñi nga xam ne ñoo jullit ñi bari lool léegi nag loolu yéem leen ba mel ni dañ koy puukarewoo di ko ndamoo léegi nag suñu borom subhaanahu wa taala euh, di leen fàttali li nga xam ne mooy euh, seen fi ñu cosaanoo ak fi nga xam ne fa lañ bàyyikoo ak li nga xam ne moom lañ romb ci seen ginnaaw ci ay tolof daal di leen di wax nag leen gis nga bisu Xunayn boobee ni ngeen yéeme woon seen bopp naw seen bopp ci bari goo xam ne bari ngeen bari ko waaye loolee jariñu jariñu leeloon dara ndax da ngeen a fàtteen suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo leen defal xéewal googu jël nit ñu bëree bëri daal di tàbb si ci biir lislaam waaye ngeen fàtte xéewal googu daal di jàpp ne lépp yéen a ko mënal seen bopp waaye yéen a mën a taxawal seen bopp fépp kon loolu euh, lu jara bàyyi xel la euh, jullit bi war nay bàyyi xel euh, suñu borom subhanahu wa taala ci xéewal yim ko defal waaye bañ di màgg-màggulu ngir mën a ngir ne dafa jàpp ne dafa mënal boppam wala yu a ah, demee noonu suñu borom subhanahu wa taala di waxaat ci jikko jooju muy aaw ak naw jëf ba tey wala di màgg-màggulu mu ñuy aaye ne wala tamshi fil ardi marahan innaka lan taxriqa al arda walan tabluga al jibala tuula kullu zalika kaana shay'atan inda rabbika makruha suñu borom subhanahu wa taala nee bul dox ci kaw suuf di yëkkati ay mbagg di dox di jug ak a ndax ne na loolu ngay def day na nga xam ne mënoo wax a wax ba yëkkati say bagg di wàccaat ci kaw suuf si ba bënn suuf si ak loo mën a yëkkatiku di bonde ci kaw suuf si ne na na nga xam ne mënoo wax ba bënn suuf si loo mën a yëkkatiku it ci kaw di yuqamtiku di juga ko wàcc na nga xam ne mënoo yëkkatiku ci kaw ba sut montagne te loolu lépp nag suñu borom subhanahu wa taala ne na ay ñaawteef la yoo xam ne yu suñu borom sib la su ñu boroom bañ la ci ab jaam mu koy def ngir lan ngir màgg màgglu ngir euh, naw boppam waaye ngir wone ak màggaayam yooyu yëpp ay bàkkaar la yoo xam ne euh, naw sa bopp wa ak aaw moom mooy tax doomu aadama bi euh, sax ci di ko def wala mu koy def lu baree baree baree bari yonente bi sallallahu alayhi wa wax ñu ci xadis ne law lam la xashiitu aleykum ma huwa akbaru minhu al ujbu yonente bi ne na su fekkoon ne du ngeen def ay bàkkaar di ko tuub du ngeen def ay ñaawteef de di bu fekkoon ne du ngeen def ay njuumte kon dinaa ragal ci yéen loo xam ne moo gën a màgg sax bàkkaar yooye ngeen naroon a def moo gën a màgg njuumte yooye loola mooy naw jëf loola mooy lan mooy aaw nit ki naw boppam di fàtte xéwal gi nga xam ne moom la ko suñ borom def defal yonente bi sallallahu alayhi wasallam na loolu su fekkoon ne du ngeen def ay bàkkaar sax dinaa ragal ci yéen lee ndax bu boobaa da ngeen di jàpp ne ñàkk gi ngeen ñàkk a def bàkkaar yéen yéen a ko defal seen bopp fekk na xéewal gu leen suñ borom may la bu ngeen fàtte xéewal googa jàpp ne lépp yéen yéen a ko defal seen bopp yéen a mënal seen bopp euh, biir ak biti kon loolu lépp ay jikko la yoo xam ne ci naw jëf lay dellu waaye ci aaw lay dellu te jullit bi war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax di sàmmonte ak li nga xam ne mooy ab xolam ak bakkanam ba yooyu yëpp mu bañ cee tàbbi aisha radiyallahu anha wax na ne labistu marratan dir'an jadidan fa ja'altu anzuru ilayhi wa aajabu bihi fa qaala abu bakrin amma alimta anna alabda ida daxalahu alujbu bi zinatin dunya maqatahu rabbahu xatta yufaariqa tilka zinati fa qaalat fa nazatuhu fa tasaddaqtu bihi fa qaala abu bakar asa zalika an yukaffira anki aisha radiallahu suñu yaay ju baax jooju yal na ko suñu borom subhanahu wa taala dolli ngërëm radiallahu anha wax na ne dama soloon benn mbubb bu bees mbubb bu bees tàq bi ko solee may xool sama bopp mu mel ni dama tàmbale yëg sama bopp tàmbale di niir sama bopp di ko xool ne na fekk sama baay Abu Bakr ni Siddiq radiallahu anhu gis na ma Euh, bim ma gisee daal ne ma xamoo ne jaam bi de saabu bu solee ak sol walla saa boo xamee ne euh, ak ak yéem boppam wala ak naw boppam wala ak màgg màggulu ci boppam dugg na ci euh, lenn ci li nga xam ne mooy taarub àdduna dugg na ci lenn ci li nga xam ne mooy taarub àdduna wala mu sol dara ba yëg ko Euh, ba yëg ci boppam ne na xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koy mere mer mu tara tara tara tar euh, ba ba muy mi loolee nga xam ne mooy yére yu bees yooyee mu sol nga xam ne moo ko tax a fàtte yàlla ba tax ko naw boppam euh, suñu yaay Aysa ne bi nga xamee ne Abu Bakr ni Siddiq wax na ma loolu la nga xam ne moom laa ca mooy dama dal di summi yére ya fa saasa daal di koy saraxe Abu Bakr ne xëy na kon yàlla suñu borom subhanahu wa taala dina ko jéggal ci euh, lii nga xam ne jëf ju màgg ji nga xam ne def na ko ginnaaw bi nga xamee ne moom laa ko xamal ginnaaw bi nga xamee ne ci laa ko xamal li nga xam ne moom la def kon nga gis ne jullit bi lu mu man di am wala lu mu man di sol bu mu ko puukarewoo waaye bu mu ko bu mu ko mu ko màgg-màggloo waaye bu mu ko wonewoo waaye bu mu ci naw boppam bu muy dox di yëkkate ay mbagg ndax yooyu yëpp day nuru ak màgg-màggulu te ak màgg moom suñu borom subhanahu wa rek moom mooy ki nga xam ne moo ko yeyoo kon aw jëf lu lu jara bàyyi xel la lu nit ki war a sàmmonte ak boppam la ba bañ ci tàbbi ñaareel ba mu ne wal kibru mooy rëy rëy nag bu ñu ko waxee mooy nëbb dëgg ak di kawe-kawelu ci mbindee yi yow képp koo xam ne moom nga waxal rek da ngay jàpp ne dëgg gi ci yow la war a féete euh, doo nungu mukk ku la wax dëgg saa boo xamee ne waxta wax nga nit ba xam ne dëgg gi sax ci moom la féete doo nungu dëgg googu loolu moo di rëy te rëy nag jikkooy suñu borom subhanahu wa moom dong moo ko yelloo moo ko war a amee képp koo xam ne xëccoo nga ko ak moom nag bu boobaa la mu cay teg rek mooy mbugal mu taratar la la cay tegal moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne inna allazina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu ci sama jaam ñi day nañu xam ne sawara suñuy tudde sawara jahannama kenn mënu leen caatee tàbbi danan ca tàbbi danañ ñam mbugal ma nga xam ne moo ca nekk ca sawara soo seek wala yaasu billah kon loolu nag mbir la moo xam ne dara jaru ko Euh, nit ki ni nga xam ne noonu na toll suñu borom tollal ko noonu rek na toll noonu waaye bu mu jiima rëy rëylu ci kaw nit ñi bu muy nëbb dëgg waaye nay fexey ba euh, lu mu wax wax na ko dëgg rek di ñor na ko feeñal dëgg ñor waaye bu mu rëy rëylu ci kaw nit ñi bu mu won nit ñi ne leen nii laa toll yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala gërëmu ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis ne képp koo xam ne lu tol ni fépp zarra mi ngi ci sab xol ci rëy kooku du tàbbi aljana képp koo xam ne daal lu toll ni euh, fépp suuf wala lu toll ni fépp ceeb mi ngi ci sa euh, xol ci ab rëy ci ak rëy euh, na nga xam ne kooku moom du tàbbi du tàbbi aljana muk du tàbbi aljana kon loolu itam lu jara bàyyi xel la muy rëy di jikko ju bon joo xam ne ab jullit war na koy daw fu mu toll waaye ab jullit war na koy moytandiku fu mu toll ndax ki nga xam ne mooy euh, doomu aadama bi euh, bu xoolaatee jëmam xool fi nga xam ne fola la ba fi nga xam ne fi si yaakaar naa diggante bi nga xam ne moom la dund euh, jarut mu fi rëy rëylu waaye jarut mu fi màgg màgglu ndax fi nga xam ne fi la jaar fépp daanaka bu ko xelaataatee bàyyiwaat ko xel rek dina xam ne moom mii daanaka du dara te doomu aadama yi fi mu toll koo ci wax doo dara mu gis boppam daal di mer waaye nag moom dëgg-dëgg e, bu xoolee fa nga xam ne fa la bàyyi ko lu jar muy rëy-rëylu wala muy màgg-màgglu wala muy e, puukarewu yooyu yëpp e, du ko du ko jar ndax bu xoolee fi ko suñ borom subhanahu wa bind ci ak néew kàttan la ko bindee nga xam ne mënalul boppam dara le mu man dañ ko ko manal mu euh, dund lu yàgg-yàgg lu mu man dañ ko koy manal mu dem ba man dara lu matum ñaar fukki at daanaka ci diggante boobu rek lay xaw a manal boppam dara bu fa jugee euh, jëm ci ak mag euh, bi jaaw tàmbalee génn ñu tàmbale di ko mënalaat kon diggante bi fi manee di fi rëy rëylu wala mu fi wone ne nii laa loolu diggante boobu xaju fi ba tax na doomu aadama bi euh, kon loolu war na koy bàyyi xel bu baax a baax di bàyyi xel fi nga xam ne fi la bàyyi koo ak fi nga xam ne mooy état bi nga xam ne ci la jaar ci biir ak dundam euh, loolu su ko doomu aadama bi dee bàyyi xel di bàyyi xel màggug suñu borom bi subhanahu wa taala dara du tax muy rëy rëylu waaye dara du tax muy jiima kawe kawe lu ci kaw euh, nit ñi waaye dara du tax muy jiima suul ak nit ñi ngir mën a yëkkati boppam waaye ngir mën a feeñal li nga xam ne mooy mooy boppam ñetteel ba mooy xasadun mooy iñaan wala soxot soxot mu doon jikko joo xam ne itam jikko ju bona bon la euh, mooy lan mooy nit ki ci boppam wala doomu aadama bi ci boppam euh, di mébét euh, xewal goo xam ne moom la suñu borom defal beneen doomu aadama bu dul moom muy mébét xéewal googu deñ Euh, daal di tàbbi si ci moom wala sax muy mébét xiwal googu deñ rek ak nu mu mën deñe euh, waaye deñce ka nga xam ne moom la ko suñ borom defal loolu moo di ak soxot mooy nit ki ci boppam suñ borom defal ko xéewal nga bëgg xéewal googu deñ loolu moo di ak soxot moo xam na xéewal ga day deñ dellu si ci yow wala day deñ du dellu si ci yow waaye ka nga xam ne moo ko yoroon moom daf koy ñàkk loolu moo di ak soxot suñu borom bi subhanahu wa di wax ne am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadlihi faqad aatayna ali ibrahima alkitab ila axiri l aaya suñu borom ne ndax dangeen di soxore nit ñi li nga xam ne man maa leen ko jox man maa leen ko xéewale ci ay ay ngëneel képp koo xam ne yaa ngi def loolu dina nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ngay attaqué eh, li nga xam ne mooy guerre eh, soxot doon jikko ju bon joo xam ne suñu borom subhanahu wa taala sax mi ngi ñaax di Euh, soññ doomu aadama bi euh, doomu aadama bi mu ci muslu bu baax a baax a baax bu ñu demee ci euh, soratu al falax suñu borom subhanahu wa taala ma ngi fay wax ca saar wa fa muy jeexe wa min charri xaasidin isa xasada yàlla yow it yàlla nag ma musal ci ayu koo xam ne dafa soxot ba pare di jëfe li nga xam ne moo di ak coxoram waaye koo xam ne dafa iñaan ba pare di jëfandikoo li nga xam ne moo di ak ak kiñaanam kon soxor lu bon bon la loo xam ne jikko la joo ne itam jullit bi war na koo daw bu baax a baax war naa bàyyi xel euh, ne jikko la joo xam ne ab jullit waru ko jikkoo yonente bi di wax ba tey ne euh, laa yajmau fi jaw fi abdin abdin al iman wal xasad euh, xolub jullit bi ñaar yi mënu faa dajee ndoo muy gëm yàlla gëm bu dëggu ba pare ak soxot nit ki moom day gëm yàlla gëm gu dëggu xam ne moom mii gëm na suñu borom subhanahu wa taala kooku yonente bi ne na ak soxot du nekk ci ak soxot du nekk ci ab ab dënnam ak soxot du nekk ci ab xolam ndax lu suñu borom subhanahu wa taala def day xam ne lii ab dogal la waaye nag euh, nit ki su fekkee ne dafa ne dafa gëm yàlla ba pare boole ko soxot kon war naa xoolaat li nga xam ne moo di ak gëmam ndax yonente bi ay waxam du waxi kese Euh, wax ju dëggu doon te ne na ak ngëm ak li nga xam ne moo di ak coxor mënuñoo daje ci li nga xam ne mooy dënnu doomu aadama bi muy waxaat ba tey ne iyaakum wal xasad fa inna alxasada yaakulu alxasanaat kama taakulu naar alxatab nee maa ngi leen di bàyyiloo xel li nga xam ne moo di ak soxot ndax soxot mooy li nga xam ne euh, day lekk jëf ju baax ni sawara di lekk mat kon soxot jikko ju bon la joo ne doomu aadama bi war na koo bàyyi xel waaye war na koo moytandiku bu baax a baax a baax même su fekkee ne dafa nekk ci yow ngay fexey ko dindi waaye bul ko bàyyi mukk mu e, continuer di nekk ci yow mu ne maariya ànd ak ngistal muxtasatun lu ñu jagleel la bel xal bi ci ab xol daalan mu di ñeent fadriya na xam nee ànd ak riya mooy riya mooy lan mooy ngissal ngissal mooy nit ki di def ay jaamu yàlla wala muy def ay jëf yu baax yoo xam ne la mu ca jublu mooy feeñal ko ci nit ñi ngir ñu sant ko ci wala ngir ñu tagg ko ci wala ngir ñu yéem ko ci loolu lépp lan la ci jublu ngir nit ñi man koo màggal walla ngir nit ñi man koo yéem di di yéem ay jëfam waaye di wax ne kii day li mu man ci jëf ju baax kenn mënu ko wala ñu ko ciy sant mu defal nit ñi lu baax ñu ko ci sant waaye defu ko te yàlla tax loolu mooy li nga xam ne mooy ngissal nee na nag ñeenti jikko yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne ab xol moom moo ko jagoo moom moo koy def ab xol moo ko jagoo moom moo koy def muy euh, naw li nga xam ne mooy jëf waaye euh, ak rëy waaye soxot ak li nga xam ne mooy ngissal suñu borom subhanahu wa dafa bañ ngi salba bi nga xamee ne mi ngi wax ci ñi nga xam ne ñooy euh, wa naafiq la mu leen melal dafa wax ne fa waylul lil musallin allazina hum an salatihim saahuun wallazina euh, toskare ñeel na way julli kat ñi nga xam ne ñoom da suñuy julli dañuy euh, dañuy dañuy Euh, dañuy sàggan ci seenu julli ak jullikat yi nga xam ne bu nuy julli dañuy gisal dañuy gisal nit ñi wala jaamu yàlla gu ñuy def dañ koy def te ngisal dong moo tax ñu koy ñu koy def euh, kon loolu lu bara jara bàyyi xel la ko nit ki jëpp jëpp jëf joo xam ne moom lay jëf daf ko war a jëf di di ko sellal waaye di ko jëf te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax mu génn ca lépp loo xam ne mooy ngisal ndax yàlla moo ne man de lépp lu ma nit ki di euh, jëpp jëf joo xam ne euh, doomu aadama mi ngi koy jëf di ma ci bokkaale ak kenn jëf jooja dama koy bàyyee ak moom jëf jooja dama koy bàyyee ak kam ma koy bokkaaleel ndax man du ma bokkaale dara loolu al xadisul kursi la euh, boo xam ne yonente bi saa moo ko wax mu ne ana agna shurakaai an shirk man amila amalan ashraka fihi maay gayri taraktuhu wa sharakahu ne na képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf ba pare di ma ci bokkaale ak menn mbindeef wala nga ma ci bokkaale ak benn doomu aadama na xam ne euh, jëfam joojee bàyyi naa ko ak kam ma koy bokkaale ndax man duma bokkaale kon ñeenti jikko yooyu ay jikko la yoo xam ne euh, ay jikko yoo xam ne euh, jikko yu lislaam gërëmut la jikko yu suñ borom subhanahu wa taala bëggut la te doomu aadama bi daf koy jikkowoo waaye nag ay jikko la yoo xam ne ab xol mooy ki nga xam ne moom moo ko jagoo moo tax sëriñ bi tijjee bunt boobu di wax ne kabairul aasina way maggi bakkaari way mooy kodkat yi badat feeñ na ashrina di ñaar fukk amman ci ña nga xam ne nuquluhum seenu toxol saxiixatun lu wér la hadat jub na ojbun mooy aaw wa kibrun ak rëy xasadun soxot maariya ànd ak ngistal muxtasatun lu ñu jagleel la bil xal bi ci ab xol daalan mu di ñeent fadriyan na nga xam kon ñu ngi tuub bu baax te jéggulu di wàcc foofu suñu kàddu di wax ni in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwaan rabbil araadi wassamaawaati ala saxaabati wassaadaati kullihim ridwaan rabbil araadi wassamaawaati mbokku Sénégal mbokku Afrique mbokku Europe ak États-Unis lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publics lépp lu ngeen bëgg a tabaxlu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieur ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xarkanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aaju faju te du ngeen sonn te kenn du luubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni makket yii xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ay tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaaraange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kennook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP ma ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg.